dafa jiite benn kuréel goo xamee ni la ko tax jóg mooy jàppal tànk Palestine te loolu yàgg na bu ñuy wax Al-Quds euh, Sénégal moom moo tax ñu koy ñu koy wax ça ne date pas d'aujourd'hui mais xam nga lan mooy différence bi président Macky Sall dafa xawoon a euh, ragal tuuti ku ko mere ci mbirum Palestine daan na ci taxaw taxawaayam daan na ci wax mais wax bi tax tax ko woon demee noonu mais bi yoon ci sommet OCI président wu Sénégal dëggalaat Sénégal ci jàppale ba muy jàppale Palestine xoolu ci Israël ndax dina ko neex wala du ko neex te la mu wax mooy ni tey mooy li ñëpp wax Nations Unies ci ay résolution génne ko mooy nañu am ñaari état Palestine am état wu boppam am am am am capital boo xamee ni dafay da dañ koy yore Israël am yëfu boppam xam nga nit ñi li ñuy fàtte mooy ci taarix Israël ay colon lañu amuñu woon dëkk. yahud yi. Hmm. amuñu dëkk. dañ leen génne fu nekk ñu génne leen fa ñu ñëw taxaw foofu léegi boo xoolee lañ la leen wooye des colons israéliens ñuy dem di di puus seeni suuf. Hmm, hmm. di foqati suufu jàmbur. citoyen au vie au su de tout le àdduna bi ñu bëri taxaw ne tekk duñu ci wax parce que am na ñu ragalee Israël benn ci États-Unis loo wax ci Israël mu dak droit de veto nee na d'accord ma ci bu xeex di am sax Israël moom moo tooñ euh, Palestine yàggul Israël ñoom ñoo tooñ Liban yàggul waaye xam nga lan lañ gis gisuñu fayu Liban de wala fayu Palestine xam nga fayu kan la ñuy gis Euh, plutôt gisuñu fayu euh, wala euh, tooñu Israël fay fayu la ñuy gis fayu yu Palestine wala fayu yu yu yu ay Liban ak ay dëkk yu yu yu yu ko wër Sénégal taxawaay bi mu war a am wane na ko léegi malheureusement est-ce que suñu suñu voix wala suñu taxawaay dina peser moo tax président la République ne ni ñun di ay réew jullit ñu tolloog juróom fukk ak lu tegal ci ay état bokk ci OCI yi mais dëggaluñu suñ bopp ndax bu ñu dëggaloon suñu bopp ci fànn wu ne tey kenn duñu raw ci fànn wecceloo ci wàlluk agriculture ci wàlluk koom mais dëkku OCI yi ay royaume nga ciy gis ay ay ay dëkk yoo xamante ne am nañu koom ba pare yore lenn lu bari ci lu jëm ci pétrole ci lu jëm ci gaz boo doon natt lii am ci pétrole ci àdduna la ci ëpp ci dëkk yu bokk ci OCI yi la nekk mais ñun ñoo dëggalu suñu bopp ni ko président waxee dëggalu suñu bopp amuñu fulla bu dee wax wax bu leer amuñu fulla ci ñi nga xam ne ñoom ñooy OCI yi wala dëkku jullit yi parce que lan la ñuy faas ay réew yu ndaw nuñ ko mën a wooyee noonu ndax bu ñu booloo woon pas booloo ci ay conférence booloo ci ay joxe ay kàddu mais booloo sur tous les plans yeneen réew yëpp dañuy ragal réew yi bokk OCI yi parce que ñi ci ëpp wàllug euh, euh, nit ñu ngi ci biir OCI yi xam nga Inde dafa bokk ci OCI yi ndax réew la boo xamee ni mais ñaata mil millions de de doomu ñoo fay juddoo ba ci Chine sax am na pàcc parce que am na ay ay ay jullit yu fa nekk ak yeneen i réew Arabie Saoudite dama ko jëllale ak ñun suñuy réew yi nii euh, il a parfaitement raison de réaffirmer la position du Sénégal ci lu jëm ci wàllu Palestine mais war a doon position aussi yëpp mais taxaw mën ko mën ko dëggal mën am fulla goo xamante ni jàkkaarloog yeneen réew yi ne leen dafa doy. mën nañ ci jàngate lu ñu wax muy par ak dialogue inter